waaw kay euh, tey nag euh, wax dëgg yàlla ñu taxaw ki nga xamante ne moom mooy Ahmed dara mu nekk koo xamante ne du kenn ci géejawaay ndax ñëpp xam nañu day défendre géejawaay banlieue bi sax la ñuy wax tey nag euh, mu ñëw fii si fekk si Balla gay fii ci safaram gi Ahmed mang ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna si. Mm-hmm. nuyu tamit sa collègue yëpp journaliste yeeg animateur lamb yi fi nekk yëpp tey maa ngi leen di si àddale nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. sa teewaay fii lañ bëgg a fii moom su ma fi ñëwee nekk ma fi gan parce que ñëw naa fi heure bu ne euh, muy guddi muy bëccëg fanaan nañ fi moo tax euh, sama teewaay bi tey dafa tombe xëj na sëñ Touba moom am rek lu mu wax ci sant subhaana wa taala borom bi nga xam ne moom moo ko jagleele lim ko jagleele ci àdduna bi mu ne nag fu waay nekk na ma ko santale doore ko ci ginaar ba ci gileem mbir mi nag fi mu nekk nii moom. taalibe moom ñun ay taalibe lañ te xam nga taalibe moom ndigal ba noppi taalibe it xër ci sëñ Tuubaa moo tax nekk nii moom bu ñu ko tàmbalee fan bu njëkk ci safar gi ba fukki fan ak juróom-ñett gis nga taalibe nii lañ koy defee suñu rakk ji nga xam ne mooy Balla Gaye nag at bu ne ci at yi ñu génn yëpp day organiser safar bu ñu ko daal di tàmbalee comme nii tey ci altine ji wutali nag euh, euh, safar ga Tuubaa bu ko defee at bu ne ñu daal di ñëw daal di fiy jaar euh, santale ko borom bi moom sëñ Touba moo ñu fi indi tey jaare ko suñu rakk ji nga xam ne moom mooy Balla Gaye loolu moo ñu fi indi tey euh, sant nag yàlla bu baax a baax gërëm leen tam. dem ne. waaw tey gis nañu ne ñu ngi kër Balla Gaye ñu gis ne géejawaay ñëpp a ginnaaw te Balla macha allah chaque at da koy def léegi ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo yor kopp war koo séddale si doomu aadama yi. comme li ñu mel ne safar ak leneen li lépp lu si topp ak li nga xamante ne ñoo ko ñoo ko ñàkk ban message ngeen si loolu waaw ku ko ci def tamit euh, def rek li subhaanahu wa jàppal ma jàppal di wàllu social euh, li borom bi wax rek nga daal di koy def moom Balla Gaye nag loolu la def lii dafa tombé safar gi waaye bu tabaski jotee boo ñëwee fii dama nga fiy fekk mu defee ay conteneeru xar man mii xëj na problème mu temps la léegi waaye daan naa bokk ci ñi nga xam ne daan nañu bind nit ñi nga xam ne war nañ leen a dimbalee lu ñu mel boo fi ñëwee tam xarit tamit loolu nga fi fekk. Euh, gis nga lamp yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo nekk fii nii yàgg na burle moom si boppam mu koy mu ko mu jënd ay ampoule def ko kon moom c'est un homme qui est euh, li ngeen koy gis nii bëri na xëdër xëdër xëdëram yëpp. ca biir saako yi la yem mais boo ñëwee fii ne da nga naan kii ne du moom waaw nekk na nag nit koo xam ne ku social la li nga ma laaj nag ci doomu aadama moom loolu moom yaakaar naa ne ñëpp a ko war a def rawatina nag ñin xam ne dañoo dëkk fii ne ci biir banlieue bi xam fi ñu jugee ak fi ñu yegg man ak moom mi nga gis suñ yaay ñoo den doon place marché Sam doon jaay ay ndugg ak lu ni mel ba yàlla tey mu def lii mu def nii kon euh, kenn waru koo jiitu ci dimbali nit ñi parce que moom il a vécu une enfance boo xam ne yombul moo xuus nga jàll kenn jàppale ko ci ndimbalu borom bi euh, gannaaw gi waa géej waaye teg ko loxo nag ba yàlla dogal lii mu dogal ci moom kon moom lii muy def nii bu ko defee da koo war a def bu ko deful da ko defal da koo war a def te bu ko deful tamit suñu genre gi danañu jël yat topp ci ginnaaw mu def ko te da koy mooy dimbali doomu aadama am koo xamante ni géejawaay la dëkk ñëpp xam nañ moom da doon dox ci social di jubóole def lépp mu génn àdduna fan yii nii euh, muy euh, kii suñu papa Daouda Seck loolu lan nga lan nga koy kii. tiis la ñàkk gu rëy pour géejawaay gépp parce que Daouda Seck moom waxuma sax man ay mbirum euh, social sax la nit ñi gisoon noonu ci kaw waaye dox ci diggante nit ñi. ay jafe-jafe yoo xam ne day amak yu ne moom ak ki nga xam ne mooy alin jaw ak mbaw mii nga xam ne moom moo nekk suñu ginnaaw nekk ay grand yoo xam ne kon dañoo euh, yàlla nag gis nga ko moom moom bakkan boo xam ne moom dafa ñam dund rek dana ñam nag safaan wi loolu moom yàlla moo ñu bindee ak moom man mii di wax ak yow bi sama papa gaañoo ñëw na fa gis nga barki Dembo Ndiaye ñun ñëpp nekkoon nañ ci dëjëm bi di ñaan nag subhaanahu wa taala xare ko ci àjjana yi gën kawe bi jaayir Seydou Diouf salaahu salaam euh, géej waay gépp a rawatina nag Balla mi nga xam ne moom lañ fekk si daaw da sekk ñëpp xam ne nekkul woon sax nit ko am jot waaye waaye daal xam naa ni daal ko amoon jotam la moom mi moo tax it bi mbir mi amee kenn jiitu ko fa euh, géejawaay ñin lii daal la ñu xam quoi ñun moom lii la ñu xam topp suñ ginnaaw grand yi xale yi tamit topp seen ginaaw waaw. ñu ngi lay jaajëf Ahmed dernier sama dernier mot moom li may wax rek nag mooy euh, euh, jàppante ñëpp jàppante ñun géejawaay loolu lañ mës xam Balla Gaye keroog bi ñu dajee fale ak El Hadj Malick Gakou dafa ne. Euh, benn xaritam moo ko doon tooñ ne ko yéen euh, euh, saay boo leen tafee gàkku ci wet gi rek wala ay jàppal bàyyil yéeg wàccal da seetlu nañ ne da ngeen di daanu te loolu moom loolu moom nekkul sax ay mbirum Balla Gaye Ahmed Aïdara Malick Gakou wala Aziz Ndiaye wala leneen benn bale benn bantu bale boo ne ko taraj mu damm mais boo ko dajalee ba mu doon bale jël ko jéem koo damm nga xool boo jëyee benn mat benn mat boo ne ko nii mu damm mais boo jëlee sayu mat dajale ko takk ko yen ko benn jeeg demal nga xool ba xam nit mën na koo damam déet noonu lañ mel te moo tax nag alir bi nga xam ne moom la géejawaay nekk am nañ yaakaar li nga xam ne moom moo fi nekk dana ñëwaat te xale bii nga xam ne moom laa seet si seet si yàlla moo yor ndam yor match nul yor défaite waaye roi des arènes incha allah rabbi dana ko jëlaat. waaw tey nag ñu ngi fii ci golf ndax ñëpp xam nañ ni Balla Gaye 2 à chaque euh, chaque année rek euh, day def li nga xam te ne moom mooy safar euh, ñu ko ci ñaanal nag bu baax a baax lépp lu mu ci def ren. yàlla na ëpp kon niñ koy waxee rek à chaque fois léegi dañ koy bàyyi moom mu nuyoo après ñu laaj ko euh, ndax safar gi bi mooy ñaata édition dañ koy bàyyi moom mu nuyoo waxtaan ak ñi nga xam te ni tey ñoom ñoo fi nekk mbër ñu ngi lay maa ngi lay fay di leen siyaar di jox seen wàccuwaay di leen bu baax baax édition yi moom bëri na moom daanaka buñ ko waññi wàññi euh, duñ ko xam amaana aussi tamit kon niñ koy faral di waxee rek àdduna buy dox site internet yi donc mooy tax ñu image yi di ko gis mais laate site internet yi am boo seetaan ay Batamba da nga daan gis ak yu demee noonu kon yàgg nañ duñ ko def macha allah tax na maa ngi ciy nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu tëër ak njabootu maam Cheikh Fall bi ak képp ki nga xamante ne rek jullit ko ngay taalibe Sëriñ Tuubaa maa ngi lay ñaanal wér ak wérle. di sakku saa su ne rawatina ren nag mu gën a yokk ah dañ ciy sant yàlla te xam ne Serigne Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam nag la am ñu ciy sant bu baax te chaque année ñi ñaan yàlla mu gën a yokk te gëm nañu incha allah chaque année gën a yokk. waaw Balla ñu ngi lay ziar di la déggee di jox sa wàccuwaay. Mhm. te gis nañu ne sa sëriñ bu baax bi mu ko moom nga xamoon. ba mhm. sëñ Bachir Ba. Mhm. nga am bis bi mu ko daan teewee. te sa xel sant yàlla rek di ci sant suñu borom bu baax di ci sant suma sëriñ aussi tamit euh, bu baax a baax. xarit la ba tax na mënu ma la wax ci moom lu bëree bëri bëri ndax fi ma toll la ah, maa ngi koy sant di ko gërëm ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ah, lii may def nii yëpp ak xam ko mu nekk as tuuti ci yoonu murit ma xam ko sax ci moom laa ko xamee. ci moom laa xamee jikko yu baax yi ci moom laa daan dégg muy wax jikko yu baax yi nga xamante ne moom la taalibe Serigne Touba war a doxee donc loolu moo tax vraiment mënuma koo fay te Serigne Touba amul morom man daal loolu xam naa ko ci. aussi ñu ngi comme si biir safar tey ban message ngeen lancé bu ko taalibe yi dem Touba mhm. ak Covid bi nga xam ne moom moom moo si ne ñu bëri mhm. dañu am amuñu fitu pour dem Touba mhm. naan feebar bi am naag amul ban message ngeen lancé sur loolu ak ñu taxaw ndax ci gàttal xaw ma ba xam nit ñi am nañ fit dem xaw ma amuñu fitu dem waaye képp kuy murit di nga dem loolu moom leer na ma roo ci ne mbokk taalibe ndax ñëpp xam nañ ne murit nu mu xëree ci ndigal ak bàyyi tere murit ndigal rek lay xaar màggal Touba kay dañuy wax ne dina mel ni nga xamante ne lu ko raw ndax chaque année saasu ne ngeen gisul leen yéem te ren tamit di ngeen gisaat lu leen yéem parce que Serigne Touba moom ñun bu ñu màggaloo sax am na ñeneen ñuy màggale waaw te loolu moom Serigne Touba mo yéen ma gën a xam daal Serigne Touba daal sooy amul len loo xamante ne muy màggalam bii. moom la am wax na ko ñu ko santale suñu borom te gis ñu lu koy teree am te am na ñu ci sant yàlla rek àdduna noonu la. xam nga nee naa la ñaari gaynde yi ndigal laa ci am daal ko ci def mais buñ ma jox lu ma ndigal du ma ko def ndax boobaa du ma xam sax la ci ne du ma ci xam njëriñ bi ndigal laa ci am moo tax kër gu ma am ndëgam nee na suñu borom ñu ci gis ñaari gaynde sëriñ bi wax rek la wax sëriñ bi bëgg moom lañuy bëgg. comme dañ ne murit jëfe ndigal bàyyi cere jubal leeral dëggal ci tànk yooyu la ñuy dox doon fas doon taalibe rek lu mu wax rek ñoon seeg moom waaw ah, ku la xam xam ne sëñ Tuubaa nga yaakaar ku la xam xam ne sëñ Tuubaa nga ma sëñ Tuubaa dafa bëri boo xalaatee waxuma la man sa at bi ma judd ba ni ma toll nii boo ko doon lim fi ngay fanaan waxuma la ak ak ñeneen sëñ Tuubaa li ma dafa bëri na moo ma defal lépp Mm. ci gàttal li tey na macha allah na wax na ngeen ni ba <laughs> def lii damay ci këram gàddu bool yi mooy li ma la rek boobu site internet bëriwul maa ngi ko doon defee géejawaay sax laa ko defee bu njëkk mais dama daan gàddu sumay bool sumay xéwal dem ba ci moom daal ko koy tegal di sikar kon loolu fàttaliku naa loo xamante ne. jour boobu def sëriñ bi dafa génn kontaar bu ñooy teew maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm te ngeen ñoo reer jërëjëf